teggin takk der yi rawatina gendarme yi ci la ministre bi ñu denk wàllu forces armées daal di inauguré ñeenti édifice ci quartier général Wali fay bu LG yi Mbao yoo xam ne nii ay équipement yu mucc ayib la yooyu bu ñu koy def nag aussi c'est pour ñu renforce kaaraange dëkk bi renforcer kaaraange ñi dëkkee ci dëkk bi ba nga xam ne am na yu bëri yuy am ci yeneen dëkk daañu ko fagaru ba loolu du yëgsi ci Sénégal te loolu aussi defe naa lu am solo la parce que ba dañuy wax développement wax émergence defe naa ne jàmm mooy jiitu ci lépp te jàmm jooju nag dañ koy suuxat balaa leneen di dal ci ci loolee daal dina inauguré ab centre médical ngir taxawaay gendarmerie ci seen wérgu yaram rawatina askan yu yeewoo fii ci mbaaw ak li ko wër principe fii boo xoolee logement yi dañu wax ay 16 escadrons mën na ko jël ak seen encadrement donc ça va tourner autour de 2000 personnes déjà qui vont qui vont habiter ici moo tax ma ne c'est une ville qui se crée ici que ville la bu bees parce que personnes ville donc loolu aussi dafay laaj ay exigence moo tax ma saluer le fait d'accompagner cet euh, cet hébergement ak des infrastructures sanitaires yoo xam ne ni dina permettre nit ñi bu ñu feebaree wala ñu war a faju ñu mën a faju fii bu ñu sonnee war a noppalu te war am yeneen affaire jàppale leen fii loolu aussi am na solo jëf ju ñu mel maître El Hadj Oumar Youm fas yéene na ko def ci yeneen caserne yi nekk ci miim réew